leer naññ là donc euh, ñu ci euh, di ci rek euh, Cheikh Abou donc Modou Lo. Modou Lo kay borom ndam li borom ndam li. dina la ko rek ah, baax na. man maa borom ko may. ana ana dafa ndànk dafa am ku toog fii ne moom dafa am victoire. nee na moom moom moom ndam li. savourer victoire am. bàyyi ko mu mu am honneur ibi victoire am consolider victoire am. waaw ayca kon nañ ci dem. léegi Hein? Ah, waaw ça ah, dépend rek. Ah, ndam li moom sa ndam la moom. ñun d'accord nañu man man maa ngi savouré moom ñëpp démb moom waaw. mais garaawul nañ ko jox comme mooy gan waaw honneur aussi. ay ca mi ngi noonu waaw mais mais mais se féliciter d'abord. Mm-hmm. ci euh, ce qui s'est passé démb. Mm-hmm. mooy sport de chez nous. Mm-hmm. Sénégal dañu bëgg làmb. balaa nga ko doon xam nga xool ce qui s'est passé ci 31 ans bi. ba le premier bi. mais ci ngoon diggante 17 heures ba 20. 2 heures ba 0 heure mhm. Sénégal yépp ñu ngi concentré wu ci arène nationale donc cela montre encore pourquoi ñu avons a dooleel sport de chez nous lutte mais aussi di opposer ñaari jeunes yoo xam ne ni kenn ku ci ne son parcours aussi am na lu mu mhm. quand je parle de Boyne, Niang def na bac euh, élève la mhm. mu ngi jàngee Gaynde Fatma parce que man bi ñu koy découvrir bobu Pikine dañ doon wax naan dafay jàng en même temps di bëre. Mhm. donc modlo aussi nekk nit ko am ni parcours bi mu def ci xale. ci watu waajuram yi. Mhm. yar bi mu am ak tarbiya bi mu am. Mhm. ak aussi njàngin bi mu am. ni mu miinee amee diine aussi tamit ni mu sellee donc mu boole ñaari nit yoo xam ne leur profil dafay laaj parfois gars yi toog ñu waxtaan ci donc mu nekk une victoire boo xam ne ni amul contestation. verdict bu leer bu jaar yoon. Euh, leneen liñ ci wax rek mooy euh, ñoom làmb ci ni mu rafetee ba mu dem ba am arène nationale nañ ko gën a rafetal parce que c'est les acteurs de la lutte mm. parce que bu ñu nee Modou Lo moo war a dugg Pikine di bëri si ñuy sànni lacrymogène ay nit yu war a accueillir modlo Lo loolu aussi ñoom buñ ñu ngi yàq seen industrie parce que nit du yàq lim limu li muy li mu moom parce que aussi arène nationale c'est l'occasion de féliciter le le nouveau ministre du sport bi mu ñëwee daf ne amul woon con directeur amul woon dara dañ ko créer man mi wax ak yow nii arène boobu dañ ma cee dóor ba am naa ci ay séquelles. parce que ah j'étais pas d'accord. bi ñuy teg conseil municipal pour diriger ko mbañi Ndiaye conseil man Daouda Gueye bi nga xam ne moo doon xeex suñu su sama almer Daouda Gueye bi nekk mm-hmm. pastif Euh, te mu nekk euh, révolutionnaire bu mag di xeex ci environnement Ahmed Gueye ñun ñu ne woon Pikine sama yaay sax dama ko daan romb mu naan ma yéen da ngeen soxor waay bàyyi leen arène nationale bi fii parce que arène mu ngi nekk à côté de chez mm. ba pare bi muy am ñu xeex ko ñun xeex bu métti mais finalement wan nañu ni ni nii kat vraiment lii sport bi kat jar na ko ba ñu am arène nationale bu ñu amee arène nationale ñun ñu contrôle arène nationale bu ñu jox dëgg. Mm. bu bëre amé wa bëre bi ñoo wara a defaral seen bopp seen cordon sécuritaire donc le ministre est venu nommé na directrice bu bees ba paré dina mettre en place conseil d'administration. def na tour mais man lima gis ci arène bi ci infrastructure musum parce que musuma fa tek sama tànk parce que j'étais contre dama jàppoon ni ni pour man somme développement bu ñu soxla won mais quand même quand j'ai vu lutte bi li mu apporté li mu créé ci emploi ak li mu joxe ak sur le plan international nu mu mel nu muy rassembler je me suis dit que ni peut-être que ñun aussi tamit xëy na nañu raison xëy amuñu won raison mais tamit lutteurs yi nañu taxaw si arène bi mais démb bi modlo di ñew police waru fa won pour dak lacrymogène ba paré bu bëree amaté Pikine aussi ñëpp di dox seen soxla normal parce que c'est anormal aussi bu bëree amee Pikine nit ne duma dem parcelle nit ne aussi duma ma ñëw Pikine vingt deux vingt quatre heures économie du dox loolu aussi tamit man plaidoyer boobu laa mën a joxe exemple bi may joxe nag ci lutteuru Modou Lo Modou la jàngale hygiène de vie. dafay leçon la boo xam ne bi Tyson dafa am lu mu wane ci àddu ci lutte jóge de la lutte ba nekk tey promoteur euh, nekk tey investisseur nekk tey dans le patronat te ci arène bii la jóge bi mu yegsee daf ne làmb bi du ma ko fowee business relevé expo kii cachet yi xeex ba pare civilisé indi ci làmb civilisé di prôné mais Modou bi mu ñëwee dans la l'arène aussi dañu seetlu ni dafa am lu mu gëm parce que man Modou doomu ndeyu Badara Gadiaga la bien vrai que maag moom amoon nañu ay problèmes yu sew euh, ci ay ay ay ay benn débat boo xam ne ni amoon na fi ci wàllu religion mais nit ku yaru la parce que kuy déggal ay magam la bi loolu amee Badara Gadiaga dafa wax ak moom ne ko juum nga mu nangu ni juum na mu nekk nit ku am humilité mais quand ñett yi dafa dafa soxal Modou mooy lutteur la mais INSEP bu Paris Badara Gadiaga ànd na fa ak moom ñu dem mu toog fa fi ñuy former les athlètes de la France xale yi juddu ñu ne dañu war a doon athlète dans dix ans cinq Modou dem na am boursam def formation boobu biir INSEP bu Paris ñu defal ko développement mu jàng xam ni lii mooy sport daf ko war a jaral yeneen lutteurs yi. ñuy dagg bii di dem di def yooyu loolu nag looloo tax ministre bi aussi ñoom it ñu war a toog bàyyi violence bi sponsors yi ñëwaat ñu waxtaanaat pour que seen arène boobu ñu mën leen fa defaral de salles mhm. defal leen fa de formations defal leen fa lépp parce que mbër sax mun nañ ko former après ba mu nekk édi professeur éducation physique mais Modou Lo exemple la man loolu rek lay xool mooy ni mu setee ci dund noonu la setee ci biir arène bi noonu la setee aussi après arène bi donc mooy l'autre aussi tamit c'est cet exemple bu ñu war a joxe la bi aussi moi, ses appartenances euh, mu nek ci politique ak ses amitiés ak ñom Amadou Ba mais gis na ko affiché mais wu ko ci arène bi joxewaat na benen exemple kon ñi doon wax naan ay ñi ñoy mbëru askan wi ak ñii ñoo dul askan wi ñu deug tay Modou Lo ngi non bu doon moy mbeur bu jégué parce que biko république bi soxla dafa dem wuy jilen dem audience def plaidoyer ñu saga ko xass ko attaquer ko mais tay mu ngi ni di tegle ay victoire ça n'a rien à voir pour montrer que il faut qu'on dépolitise l'arène mm-hmm. tey Modou Lo affiche mak Amadou Ba lan la wañi ci bëreem terewul mu ngi gagner ay combat terewul Amadou Ba du sëgg bëre ak mom et aujourd'hui lu ne dégg na ko ci ñii ñuy taftal naan ñoo ànd ak mbëru askan wi ànd ñoo mbërum askan wi loolu dafa am benn sens. alors mais mais abo ci open rek gis naa Modou Bob kii kii dafa mbër moom mu affiché ci ñoo ne ci Modou Lo ko ñoom ñoo mais dafa dañ ci juumoon dañ ci juumoon ci côté Ama Balde ma gis j'ai ko que Amadou Ama am grandeur nag après rectifier ko parce loolu bokk na lu bari lu yàq ci bëre Amadou mhm. Balde. parce que lan moi, mbër yi demoon au président de la république mais président de la république lañ demone séti mhm. C'est le président de tous les sénégalais. et puis ñu nek ay citoyens sénégalais. Nous ay citoyens mhm. sénégalais. Mhm. donc bépp mbeur bu ci demul. mais sa bop ngay yakal absolument parce que bagn fa demee 500000 jugu fa. jóge FONGIP di diggante bop ba légui amul bagn fa démé arène nationale amuñu directeur bu bees. arène nationale lampe yi tàqaatuñ. té moi je demande ça à ce que dama ko xép bëre war na mëna a mobiliser plus de 10 milliards parce que dafa nekk sport boo xam ne léegi les écuries dañ leen war a professionnaliser. dañ leen war a permettre à ce que mu am championnat national et régional mm-hmm. te dégg naa le ministre wax ko foofu. Mm. mu ne bu sañoon day am championnat régional national et international. yaa ngi gis ñoom Reug Reug ñiy dem international ñoom Bombardier ñiy dem international mm-hmm. di dem di ko bëre ji mm. donc bu ñu jël bëre bi bu njëkk ñun suñu papa yeeg suñu maam yi dañ ko doon fooyee mm-hmm. bu ñu bayee ba pare di ko café di ko pour pour dajale askan wi pour mais léegi dafa mujj nekk métier professionnel mujj nekk industrie mais Modou fim ko tek fi ko Tyson tegon jamono ji fa la ko Modou Lo donc couronne couronne arène bi bu njëkk dañ naan wax ni ngoy jëlé dafa yomb té ñepp xam nañ ni tamit parcours vrai roi la parce que gis nga ñi mu daan gis nga parcours donc benen côté bi nak moy niñ ko bëgg géographie bi man lay bañ moy nañu wañi mbëru Pikine ak mbëru parcel mbëru Dakar mbëru leneen mm-hmm. parce que handicap la aussi parce que tay à Pikine am ñu ñu ngi dañuy freiné ah, tëj arène bi mm-hmm. biir géejawaay ñaata mbër ñoo fa feeñ mm-hmm. bu ñu nee mbëru gé mais géographie amul ci bëre Moustapha Gueye moo doon mbëru Sénégal yëpp presque amul woon frontière Tyson moo doon mbëru fii Kaolack feneen ak feneen mm-hmm. mais c'est bon nit ñi ne fii la dëkk fii la cosaano fii la kiiweeg fii la leneen ñi ciy def nag ay genre xeex ak kii yooyu ñu ngi yàq mais quand même Modou bu ko neexee mu ñëw pikin comme ma ngay daan ba bu ko neexee mu ñëw jël conseil municipal léegi loolu man dérangé wu ma parce que xam nga lu tax mooy am na bu demee ba ba sport tax am ñu ko bëgg parce que victoire nit kat kuy ngemb kuy ngemb ku ne kuy daan nga nga bëgg kenn kan du topp ku dul daan waaye kii daan nag aduna yëpp koy sopp amul frontière amul géographie mais quand même ñu ngi fermé làmb ji te xamuñu ko parce que ñaata mbër ñoo am pri booy ñaane du ma bëre ak Ama Baldé mais loolu lamb la bu neex sax. bu neex ñu bokk génération. géejawaay kii ne du ma bëree kii kee ne du ma bëree kee. bu yàggee sax du ñu am adversaire bu am adversaire. te benn instant war nañu chaque dimanche ou bien lamb war na am. Mm-hmm. war na am championnat mini catégorie. dem nii intellectuel classe bi ñu amoon. waaw kay gis nga l' exemple de classe. bi ñu lukkee ko. kay gis nga classe boobu tey moo leen indi gis nga kalaaf bi amul woon ay problème mu fi nga dëkk foo dëkkul tirage la biir seen biir moo tax loolu war a encouragé mm-hmm. ba ñoom ci seen biir ñu dindi levé yooyu mm-hmm. daal ne problème bi mooy violence bu mu am mm-hmm. nañ ko def par élégance bu làmb jeex mu jeex keroog ama bi mu paree dafa jóg accolade accolade boobu laa ko sopp geste bu rafet donc Boy Niang bii tey jeune Ousmane Sonko ya te ñoom politiciens yi ñëpp dem ñu ci né am am nga am nga position pourquoi on met des barrières ak assumé moom Modou Lo moo ëmb gis nga ni ci li nga nekk ko koy dem ko dem ko amul ben frontière bu ñu la ci wara mëna mën donc pour man rafet na démb top victoire bu set na mais Modou na ci sénégalais yi di jang ci mom ci hygiène de vie am mm-hmm. ak ci ni mu gëmé lutte bi parce que ku dem ba INSEPS bu Paris pour man nak mbeuri ma ngi leen koy plaider arène nationale nañ leen fa ibil ben salle bu mat. wala ñu mettre leen à leur disposition des mhm. matériels ba pare defaale fa sax salle de formation pour mhm. mbër ak leneen mbër bu mën dawal oto mbër bu mën dawal ay machine agricole mbër bu mën a dawal ay leneen parce lii mooy suñu sport mhm. ni ñu defee football bi aussi nañ fa yóbbu bëri parce que bëgg nañu bëri bi alors Yatab nga baal ma balaa may ñëw ci yow Abo wax nga ko tout euh, bi ñuy sanc